syndicat autonome des travailleurs des eaux du Sénégal tey ñoo daje woon di def seen réunion conseil des délégué am yenn xibaar yuñ bëgg a mbooloo mi si lu jëm ci situation wu travailleurs yi ak situation wu entreprise bi nga xam ne mooy seen o poñ bi ci ndëkk bi nga xam ne moom lañu bëgg a wax ak askan bi dafa jëm si mbirum conseil d'administration bu Sen'Eau liggéeykat yi nga xam ne ñoo nekk ci secteur de l'eau maanaam Sen'Eau ONAS ak SONES boo ko boole dañuy am 11 pour cent ci action yi nga xamante ne mooy action wu Sen'Eau yi li xew mooy direction général bu Sen'Eau ànd seeg ay secrétaires généraux yu syndicat ñoo bëgg a daje wut ku ñu fal koo xam ne kenn wa kenn doyloowu ko te mbooloo bi nga xam ne ñoo moom seen action liggéeykat yi falu ñu ko loolu nag forfaiture la jaaduwul respecté wul texte yi te xam nañ ne lu ñu ci jublu mooy jël suñuy 11 pour cent jébbal ko groupe Suez bi nga xam ne moo am 45 pour cent bu ko defee ñu am seen 56 pour cent lu ñu bëgg a jàllale ci conseil d'administration bi mu jàll te loolu xam nañ ne teguwuñ ko ci benn dëgg. donc ñuy waxaat encore une fois direction générale bu seen na organiser élection yi bàyyi personnel bi nga xam ne ñoom ñoo moom seen action ku ñu wóolu doyloo ko mu teewal leen ci conseil d'administration boobule loolu mooy dëgg ci kaw loolu. ñu ngi saisir ministre de l'eau et de l'assainissement Serigne Mbaye Thiam ñu ngi saisir le ministre le le le le DG du FONSIS monsieur Abdoulaye Diouf Sarr ñu bàyyi xel ci képp ku nga xam ne indi nañ ko ay groupe syndicat dajaloo ne kii la ñu fal pour mu dem ñu xam ne personnel Sen'Eau faluñu ko doyloowuñ ko bëgguñu mu teewal ñu ki ñu nar a teewal ñun ñoo ko nar a falal suñu bopp ci ay élection yu leer yu démocratique comme niñ ko daan defee loolu mooy dëgg te ñu ngi ciy attirer attention Sénégal di si attirer attention toutes les parties prenantes ñu bañ fexe ba loolu mu jàll te loolu du intérêt Sénégal beneen point bi seen o dafa am lu yéeme lu fi am dañu constaté fan yi daanaka weer yi génn yépp depuis ba màgget ñaa ñëwee ci poste directeur général bu seen o ay nomination di fal ñoo xam ne du seeni liggéey moo tax ñu fal leen di seeni njàmbarte moo tax ñu fal leen li tax ñu fal leen rek mooy dañoo xaritoog DG bi wala ñu bokk ci yenn syndicat yi nga xam ne dafa jege direction général te loolu xam nañ ne doxalul liggéey bi seen fu mu toll def na 15 milliards de perte ak lu teg ba mu démarré janvier 2020 ak léegi perte yooyu nag manque de performance boobu manque de bon management boobu bu ñu toppee di def ay nomination yi nga xam ne basé wuñ ko ci mérite loolu day gën a suruxal entreprise bi ñuy ñaan di sàkku ci directeur général bi mu delloo ci xelam te jël nomination yi teg ko ci yoon teg ko ci mérite ba kenn ku nekk gis ci sa bopp ci biir entreprise bi liggéey bi gën a mën a jaar yoon. beneen point bi mooy lu jëm ci élection des délégués yi mandat délégués yi nag dafa expiré depuis mars 2023 boobu ba léegi ñu ngi topp ci ginnaaw direction générale pour mu organiser élection délégués yi mu ñuy dawloo lànk bañ a organiser élection yi. vote digital bi nga xam ne daf ko bëgg teg loi bi prévoir ko mu bëgg ñu ko forcer ci outil bi digital bi mu ñu bëgg a forcer moom moo ko concevoir. te amul benn kóolute bu ci nekk képp ku mu bëgg mu gañe moom mooy gañe personnel bi àndu ci te ci kaw loolu saisir nañ ministère du travail pour mu atte ñu te bu jaree ñu dem ba tribunal dinañ fa dem pour ñu atte ñu ndax vote bi dafa am luwaa bi lu mu ci wax lu mu ko tënkee nañ ko defee ni ko loi bi tënkee te noonu lañ ko yàgg defee fii ci Sen'Eau loolu la ñuy sàkk ñun ñii di délégué wu personnel fii ci biir Sen'Eau beneen point bi si lu jëm ci fonds commun de placement di jox leng yi seen o daf fi bàyyi woon benn fonds bi nga xam ne liggéeykat yee ko moom fonds commun de placement boobu nag boobu ba léegi seen o ba mu ñëwee mu ngi dagg liggéeykat yi te versé wu ko ci biir fonds bi xaalis boobu muy dagg di ko liggéeyee personnel bi gisu si seen bopp ndax xaalis boobu juralu leen dara ñu ngi continuer di leen dagg lank bañ koo delloo liggéeykat yi lank tamit bañ koo dugal ci fonds commun placement boobu loolu xam nañ ne teguñu ko ci benn yoon ñuy sàkku encore une fois direction générale mu jël xaalis boobu delloo ko liggéeykat yi nga xam ne ñoom ñoo ko moom te mu arrêté dagg salaire u liggéeykat yi di ko tuddee ponction ci FCP te loolu xam nañ ne du jaadu liggéeykat yi ñuy jël seen salaire te du leen jural dara direction bi di dajale xaalis boobu di ko liggéeyee. loolu la ñu amoon si lu ñuy tënk di leen sant di leen gërëm di leen xamal ni syndicat autonome des travailleurs des eaux du Sénégal ànd seeg waa CSA confédération des syndicats autonome du Sénégal dinañ continuer di taxaw temm ngir défendre. liggéeykat yi seen Sen'Eau défendre globalement liggéeykat yi nekk secteur de l'eau ngir seen yokkute